waaw waaw moom euh, je dois d'abord dire que ni sama yéene la woon bu yàgg euh, mais euh, li maam Biram man man mënuma ko jot gi mu am mën a toog réfléchir bind génn téere di waaj yeneen xam naa ne Euh, man moo doon sama jafe-jafe mais yàlla def euh, Cheikh Niass ci ay xalaatam mu créé fii ci kër gi benn bànqaas bu bees bu ñu tuddee Walf Édition mhm. euh, suñu xarit suñu confrère Ibrahima ànd na ca bopp ba mhm. ñoom ñu proposé ma ne ma naa bind samay jaar-jaar mais également surtout surtout mhm. raconter li nga xam ne en tant que journaliste reporter d'abord ensuite chef de desk ensuite rédacteur en chef ba tey nekk directeur benn ci tele yi gën a mag ci réew mi forcément am na ay événement politique yu bëree bëri yoo xam ne assisté nga ko te di def ay live di ko nettali du doy mhm. euh, euh, di def euh, ay article également ci journal di ko bind du doy comme ni ma ko maam Biram waxee démb l'écriture ça reste mhm. moo tax ñu jéem ci lu ñu man ngir def loo xam ne lu ñuy partager la mhm. je dis boobu ba léegi que ni man li ma bind mën na nekk Euh, parcours n'importe quel autre journaliste sénégalais parce que daanaka jaar-jaar bi benn la mm-hmm. événement yi bay nettali également ay événement yoo xam ne daanaka journaliste sama génération yëpp ñoo ko dundandoo mm-hmm. peut-être man regard bi ma ci am ak ñoom bi ñu ci am moo moo mooy wuute mm-hmm. mais c'est événement événements c'est des faits yoo xam ne moom la ñu moom la ñu dundandoo am ci yoo xam ne euh, je trahis pas un secret mais yu ma bëggul woon di nettali la mais bon pression wu euh, bindkat ak ñoom Cheikh Niass ak yooyu. Mhm. tax na ba ma dugg ci mooy notamment fu may raconter euh, journée wu faatu wu Sidi Lamine mhm. fan yi ko jiitu. Mhm. journée bi ci boppam ak bés yi nga xam ne moo ci topp. nga xam ne métti woon na métti boo xam ne personnellement pour man mais pour également tous les travailleurs de Walfadjri ak sénégalais yëpp am na ci yoo xam ne boobu ba léegi dama ko garder woon euh, sama bopp mais euh, def naa ko ci livre bi parce que effectivement maam Biram euh, wax na dëgg mbir la yoo xam ne dañ ko war a bind mu des pour l'histoire fii ak cinquante ans xëy na suñu ay doom suñu ay sët buñ ko liiree xam ne seen réew mi à époque sàngam lii ak lii xewoon na fi. Mhm. voilà. Mhm. Mhm. cérémonie dédicace fii la ci Walfadjri. fii ci Walfadjri dimanche incha allahu rabbi amul paas amul invitation ku bëgg a ñëw ñëwal. Euh, parce que mbiru Walfadjri noonu la. dama liir keroog euh, ci ma biram ci euh, Facebook démb benn affaire bu ma reeloo quoi. benn waaye day laaj livre fan lañ koy jaayee. am ku ñëw bindal ko ci suuf ne ko Walf ay baana baana lañ seen biir bureau yi lañ koy jaayee <laughs> mais mais mais dëgg tout se fera ici chez ak toute la famille. Walfadjri muy travailleurs yi euh, muy yi surtout ñoom ñëpp dinañ fi a ñëw ñëw. Mhm. incha allah ñu partagé bu neexee yàlla. Mhm. beneen question bi euh, nan ngay yoree ñaari soxna ba noppi am temps bind euh, lii. <laughs> c'est du n'importe quoi <laughs> je réponds pas à xam nga xam man dama jàpp ne. xëy na sax euh, quelque part euh, ak jamono ji nu muy doxee. Mm-hmm. Euh, sénégalais yi ñu bëri li nga xamante ne nii moo leen gënal mooy maanaam ñu jàkkaarloog télé di seetaan wala xool see ubbi YouTube. Mm-hmm. di seetaan. Mm-hmm. donc benn paresse boo xamante ni xëy na moom mooy li ñu fay nouvelle technologie yi. mais livre bu Moustapha bi man je pense que ñi nga xamante ne nii yëpp mën nañu jàng tubaab war nañu ko lire. rawatina nag. les journalistes. Mhm. rawatina nag les journalistes parce que am na ci yu bëri yoo xamante ne nii euh, mu ngi ko ci relaté te jàpp naa ne ñi nga xamante ne nii bëgg nañu avancer si sunu métier bi. Mhm. Euh, day baax ñu liir ko xam quelque part. yenn ci ay jaar-jaaram ak naka la def ba agsi fii. effectivement nag moom fii ñu xamante mooy Walf Quotidien bi mhm. fa la ñu dajee. Mhm. donc euh, booba nu ma ko doon wooyee le baobab parce que am na yoo xamante ni gisoon naa ko euh, ci moom. ba tax ma tuddee woon ko euh, tur boobu. ma ko mhm. doon ko woowee tur boobu. donc je pense que moom ci boppam moom bu jëlee yooyu yëpp expérience yu bari ci loolu bind ko ci benn livre. nga nekk journaliste ci dëkk bi bëgg fee euh, euh, am benn nga surtout les jeunes. Hmm. nga bëgg fee euh, comment dire am jaar-jaar boo xamante ne nii xëy na ci métier bi di nga ci def loo xamante ne nii dina mucc ayib dinañ dem ba ñeneen ak ñeneen di ko saluer. Hmm. day baax nga nga nga liir ko xëy na. y a la paresse de la lecture mais nañu def effort boobu jënd livre bi liir ko pour xam expérience su Moustapha Diop ci surtout presque écrite bi nga xamante ne nii foofu la démarré avant muy ñëw ci télé bi. am na ku ne mën naa mise à pied Pape Makhtar une semaine ndax question bi ma laaj. <laughs> mais mais boo xam man Pape. mais privé aussi nga ñëwaale. Euh, Pape Pape naa la na man dama am euh, xaw ma nu ma ko waxee man dama dama dama naw kuy bind. soo gisee chronique yu bari. su may cité damay cité ay bind ay bindkat man bindkat rek laa naw respect boobu laa am ci yow parce que yow bindkat nga respect boobu laa am ci ci ci ci parce que moom euh, bind bindkat la livre bi mu bind moom maam euh, wax ci euh, diggante Macky Sall Abdoulaye Wade Idrissa Seck Karim Wade mmh. sama saak bii may ngi ci biir mmh. livre bi toujours ngi ci biir il m'arrive très souvent ma toog ci yenn événement yi ma dem tijji ko liiraat ko et pourtant mmh. amee complexe ci nit rek xamal ne bind bindkat la j'adore ça euh, donc euh, yàlla dimbali ñu mën a bind tey et que man li ma wax démb Ibrahima Anne c'est mon ambition man dama bëgg su ma su ma paree ci bii am des événements majeurs yoo xam ne yàggul dara marqué l'histoire politique du Sénégal mm-hmm. man am naa yéene bind ci mm-hmm. te jaral na ma ma jël ay vacances bu dee vacances yi six mois sax Euh, pour bind ci loolu dina ma ko jaral te incha allah mooy sama yéene. lii comme ni ko Ibrahima a expliqué entrée la rek. plat de résistance bi xëy na euh, ci yeneen jamono dina ñëw. et li ci gën a neex pour man. mooy tey maam Biram su bëggee bind Pape Mokhtar bëgg a bind. ñun fii ñu nekk am nañ maison d'édition mën nañ éditer suñu bopp. Mhm. Euh, c'est valable pour ku mel ne Fatou Diouf Faye nga xam ne moom ci wàllu culture lay yëngatu. Mhm. toujours day foo di bind ci ay poèmes et tout. Mhm. mais ñu mel noonu suñu amee possibilité fi ñuy liggéeyee ñu mën a. ñu mën a bind. Euh, c'est une excellente chose surtout que l'édition excessivement cher. excessivement mm. li ma ci gën a neex mooy Cheikh bi mu defee loolu euh, man dama yaakaaroon ne ci lay yem mais daf ko jaral mu sol dàllam dem ba France. Mm-hmm. dem signer ak ñoo xam ne suñu bindee ñun fii dinañ ko mën a distribuer à travers tous les pays du monde. Mm. te loolu dafay neex parce que Walfadjri ku ko wax. Mm-hmm. wax sénégalais yi nekk ci diaspora bi. boobu ba léegi ñu bari ñu ngi may laaj comment faire pour pour am ci mais incha allah bu Cheikh ñëwee ak jàmm. Mm-hmm. dinañ ci waxtaan dinañ jox toutes les informations nécessaires ñu mën ci non seulement euh, lima doon wax sànq waa Walfadjri am nañ tey fu ñu mën a bind ñu publier mais même suñu ay confrères ak ñeneen bindkat yu ne ci uh-huh. réew mi ku ci bind bëgg ku la ku la édité uh-huh. boo ñëwee fii ci Walfadjri ñun on va le faire waaw prix bi. Euh, prix bi ñaari junni lañ koy weccee ko waaw sama benn sama rakk bu jigéen ne ma ña boo ci amee ñaari junni boo ci amee juróom cinquante mille la jann robb ma ne ko xam-xam jann lëpp loolu. wallaay souvent lu ñu xam temps bi ah, ngay passé ci ci non non non ci téere mais ba tey sama question bi li waa ji wax laay def. lecture moom xam nga sénégalais wala ak ñu bëri sax dañ koy xeeb. am mm-hmm. paresse bi mais lecture c' est fondamental. dama mës def euh, benn assemblée générale boobu maa ngi université. oui wàcc benn waaye ne ma mais grand yow ni ngay di ni ngay dingatee système bi nii foo jàngee sa français bi xanaa du ñuy ngay dingat ñoo la ko jàngal de. wallaay ma ne ko liir rek. liir rek. liir rek bi may oh, nekk euh, <laughs> bi may nekk euh, lycée seconde loxo ba première ma ma daan faral di dem centre culturel am benn genre encyclopédie bu nekk foofu bu ñu tuddee ma ne dama koy kóoru. mais mais fii maam Birame. <laughs> donc euh, waaw waaw kon del donc. fii mënoo fi nekk euh, nu ñu koy waxee un analyste politique. Mm-hmm. Euh, di décrypter l'actualité te doo liir mënta nekk mm. moo tax souvent nit day seetaan maam Biram muy wax wala Pape Makhtar wala Moustapha mu yaakaar ne yow da nga da nga fi juddu woon depuis 1960 ak yooyu mm. du loo fekkee mm. mais ña ko fekkee dañoo bind bàyyi fii moo tax nga man cee jot te loolu man dama jàpp ne bokk na ci problème mu presse Sénégal léegi man en tout cas sentiment boobu laay am très souvent su may seetaan télé yi di déglu rajo yi damay xool j'ai l'impression que ni euh, kii di wax kii jàkkaarloog man di wax am na yéene bi am na jàng bi Euh, am na jaar-jaar bi mais malheureusement li muy wax jéemul lire pour xam exactement comment ça s'est passé te à partir de nos de nos lectures mooy tax ñu mën a projeté wu ci li nga xam ne moom lañ nekk di di di jàngat tous les jours parce que Sénégal euh, xëyul rek taxaw dafa am fu mu jaar fu mu jaar am na ñoo xam ne ñoo ci sacrifié wu ak yeneen ak yeneen ba agsi fii et c'est important man euh, dama wax souvent ñaari ñaari mbir gis nga benn jour dama toog déglu Alioune Ndiaye nekkoon directeur Walf FM bi am benn émission bu ñu ko doon laaj euh, parce que c'est un excellent analyste mu ne moom il lit pratiquement un livre par semaine ou quelque chose comme ça noonu la ko waxee woon quoi mhm. boobu laa décidé euh, d'ailleurs ria a un homme politique sénégalais euh, qui est dans le pouvoir de de de Macky Sall Euh, jour boobu livre yi ma yi ma jotoon moom la ko waa ji ma ko jëndal en France jox mu indil ma ko. Mhm. pour ne pas le nommer Abdoulaye Balde. waaye bu ne ca France moom laa woo ne ko je tel tel livre mu jënd yépp jox ko ko moom andi ko. Mhm. sama décision moo doon li nga xam ne aw ma chance su jàng ko université. Mhm. wala jàng ko feneen je apprendre ça à travers mes lectures et ça c'est fondamental. mësuñoo tukki mësuñoo dem France mësuñoo dem États-Unis ah, a baax dédicace yu dimanche la fii à partir de 15h euh, kii ñëw rek na nga indaale sa ñaari junni comme ça. Euh, ñu jox la euh, téere bi téere boo xamante nañ koy dédicacé voilà ak photo xam loolu ëpp na ñaari ñaari junni. ñuy ci waxtaan bi das ci yow Moustapha mhm. Diop gouvernement bi nga xamante ni ñenn ñi ngi ko doon xaar yaakaaruma Sénégal yëpp doon ko xaar mujj nañ koo tabb.